Thiès ci Zik di journalu faits divers yi. suba suna suñu téere dañu jotee altine ba àjjuma Thiès di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Thiès di di nettali seen bopp yéen ñi suñuy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mami def. maa ngi rek. mami wéet nañ. lii kenn du ko a gis. Chimère ñëwal. ah waay waay def leen appel à candidature ana góor ñi. Eh, yow man baal technique nga ñëw fii. moom bañ na ko ba sax toog nag moom. Ah. loolooy débrouillez-vous. appel à candidature ana góor ñi. eh góor na. ana góor ñëw na góor ñëw na góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor góor ay góor baax na ci biir réew waa góor a ngi toogal ma laal la góor toogal gis nga coupé sax laa sax barki ñoom yonent bi ayoo góor a ngi mantu yow yow nekkati nag kay ma wax la nag réew mi nag gis nga nekkati jigéen mu nekk jigéen mu yàq dama lay laalee nii maam bay wër na la ma andi la ah yow réew mi ngeen baal ma rek dama bëgg góor di waaye góor a ngi waaw waaw waaw yàlla. góor ngi góor góor góor góor góor. maam nuyool. elles ne sont pas sérieuses. maa ngi ànd rek. alhamdulilah alhamdulilah góor gi waaye nga say toj toj. góor gi waaye nga say toj toj. waaw ma uh, yow yow tamit. ay waay góor gi waay sama xol bi dafa sëb. Ousmane am na ma la jigéen léegi ma jooy yow. <laughs> aywa attanu ma lii Ousmane sama xarit bi Elton. ay waay góor gi waay. attanu ma lii Mbaye. waaw nuyu naa waa Tës. ay waay Mbaye góor gi waay. namoon naa leen. ay waay jërëjëf waay yàlla. merci mon Dieu. Mm-hmm. ah. si mel jóg nekk ci studio bi nekk fi góor xañ ñu. lu tax ngeen ñeme gros boobu. xañ ñu xañ ñu sa salaire sa salaire masculine. kan moom maam nga indil ñu nga indil ñu sa salaire masculine. ligne moom euh, donneur universel la de. kan moom chimère. wóorul wóorul moom yu moom ay euh, la. Euh, ah, ma attanu ma attanu yaay dugg yaay yaay dugg. c'est que nag man Mame Mbaye du ma ko wooyee Mame yi damay bañ nag def promotion yi ki ma koy wooyee. léegi nag dimbali ma ci rek Mame Mbaye bu ma tooñ. <laughs> man moom bul ma xool bul ma tooñ ba tës bi jeex. ndax damay bañ tudd. waaw ah, baax na rek baax na kay on on se sait. waaw on se sait. kay loolu laay bañ. on se sait. diggante bi yow mi yéen moom mooy sama complice mooy sama jumeau. waa léegi moom moom nii. lan la. Mami Samb. yéen réew mi nekkati bu amul woon. góor yi yëpp neex. lan la mami de bu ma gisee tiit bi mu tiit nee na mooy góor a ngi. góor a ngi yàlla xam nga xaw ma woon ne yéen a gàddu. yéen léegi man sëree gi ma àndal ci kanam yéen ngeen bëgg yàq sama askan bi sëree gi ñu may xoole. mosoo ah. sérieux mosoo sérieux. fu la jeex fay yéen ñu ma xamee ci télé bi. mosoo sérieux Baye. man de gis nga si ma fi ak mantu bi bopp yi métti laa ci jëlee mantu bëgg naa ko trop vraiment je l'aime cette fille mais je peux pas mënu ma ko. laa ngi jigéen waxoo ci dara. je peux pas. foo brax. mënu ma ko mënu ma ko. faaw ñu panaché ko ah. attanu ma loolu attanu ma loolu. Mambé ba nga duggee dañoo tiit. dañoo wër góor fi ba soo dugg suñu. te yow xoolal Mambé ni mu dugg see yow gis nga ah waaye yow rajo waroon naa mel mi télé Mame Mbaye de coupé gu mu maye ubbi na ñetti bouton semis. déedéet dafa xaw a langal karaw Mame Mbaye da nga tegoon wes. waaw dama tegoon wes non non. mais Mame Mbaye après nag kii kii Covid bi ngay def point bi. defal ni li ma sol lii nga sol nii day yaa nga fashion be kaay ma wax la. xale baa nga fashion be. bugaan fa mu taxaw rek <laughs> day tëb ko. kaay ma kaay ma wax la layla. moo la gën a fashion. boo gënoon kilote laa gis mu def ko. di wàcc marche escalier am def ko la custom bu baax. moo la gën a fashion bi. moo xam naa entraînement yi mooy dugg na. li ma mi naan patron xale. patron xale waaye employé it xale. kaay ma wax la de mantu. man tukki bu génnee nii ci télé bi di nga dégg lu mu def ci réew mi de. on a des jeunes maam def na ba pare di. su ma paree ba nettal la lam fi defoon. man alhamdulilah moom it daal lam fi defoon ñoom waa 10 000. neex ba. waaw waaw waaw dal na ko. moom mii nii. ba ma pare ba nettali la. waaw ah, gis nga message bi fu mu nekk dama xanaa xanaa xanaa def simis coupé. mbay li nga def ci réew mi bëri na bu ñetti bouton. walaay def ma dara. eh maa mbay da nga sañse de. maa mbay lii ngay génnee tey ci télé. daaw ah, ah. Mouhamed Mbaye yow. Mouhamed Mbaye FM. waaw léegi yow léegi léegi léegi Bougane Gueye Dany jox ko autorisation mu génne li ci télé bi. pour li ma sol ni waaw di nga dégg lu mu def ci. maa ngi lay léegi Bougane jox ko autorisation. autorisation sax dama ko génne. Mame Mbaye lii li nga ci nar a am tey. li coupé la. coupé bi li nga ci nar a am tey. keroog Safia moom la sol gis-gis. c'était très joli. non c'était très joli man dama def ma neex li mu. jàppul mag léegi. mbay lii moom moom ngay génne tey. lii salu xale la tey bi mm. damaa jël mag de. lii jàpp nag mm. xam nga yii jàpp la la ma la ci yéene moo bari na ko def ak tubéy ji nii. jàppul ñëpp sax mbay lii moom ngay génne tey tey. jàppul ñëpp daa xale la. te damaa jël mag lan sa patron sa patron xale la yow xale nga. defal yi fi xale yi dara nekku ci. patron xale employé xale. di nga dégg di nga dégg lu mu def ci réew mi lii. lii baax na patron xale employé xale. te xam nga lii jàppul ñëpp tamit ba dënn bi tax pour ñoom. ku ma ku may ku ñuy xëy di di ma bàkk. du pour yow yow si mère Diop yow xam nga sa bopp yow xam nga ne boo coupé woon yow. merci rek. Eh, sim nag bu coupé woon fii day toj. ah waaw non da koy jàpp. da koy bañ ko lekk da jàpp ak pectoraux pectoraux pison yi. ah tamit. yàlla bu ngeen dégg li si maire di wax pareegul ngay coupé. li si maire di wax yàlla bu ko dégg. li naan li góor di duggee du dundee yàlla bu ko noonam xam. waaye li si maire di wax yàlla bu ngeen ko dégg. li muy wax ci suuf yàlla bu ngeen ko mës a dégg. seen nopp yàlla bu mu dégg de caaga ñaay bàyyi ma. léegi li mu wax moo la xam. lii retour bi ci kaw. waaw ba anamu dem na waaw waaw. waaw waaw waaw waaw. waaw waaw. xam na man xam naa. loolu il faut ngeen ma ko. non su ma paree ma expliquer la mami xala dootoo waxaat deuxième partie bi. nga expliquer kii lañ ko def. du ma la tontu yow yow mi ma. ah Assane Fall maa ngi lay nuyu. aywa su ma paree ma expliquer la waaye mami Samb. expliquer leen ma yéen itam. ñamal leen ma ci. yee mbay. la la la géwal ba naan yee mbay lii nag mooy yee mbay. ñamal leen ma ci. yee mbay. man tu an sa papa seen seen nijaay man. moom laa leen doon waajal a ama yow bant la man dama ñu gis. damaa yeewu tey. sama ba Sani Ndiaye anañu. te hmm. waa ji revue des titres gisuma monsieur le maire bu Guédiawaye. man de damaa xëy rek. gis kenkengu Birahim Touré yi. nga xam ne. mu ne man El Hadj Mansour du ñëw waaja huit heures bi. nga. Hmm. ma ne ko keneen ki moom mu beneen seex ba. mu ne ma moom it ñëw. Ah. dañ ko digoo de. Ah, fu ñu nekk ñoo fa bàyyi seen bopp. jël nañ seen yoonu bopp de. billaay da ngeen ñu doon pièce waaye di ngeen xam ne hmm. ji. merci rek maam merci ci ni nga ñu sowee. ah nii nii nii ni ma leen raxee. ah nga ñu maam. maam këf ki ah, xam naan daal. xam naan daal fu ñu nekk ñoo fa bàyyi seen bopp ñoom ñaar. Hmm. te fu ñu nekk ñoo fa ànd. Hmm. de lii leer na ma naañ. Hmm. fu ñu nekk ñoom ñaar ñoo fa ànd. ndax lii moom mënta nekk hasard. dëgg la de te nag sax nag maam Mbaye. tey ni mu ñëwee daf ma neex. ndax lan ndax yow comme yaay monsieur point corona ci télé bi. Mm-hmm. te tey corona tës bi corona la mm-hmm. benn tës bi corona la. Mm-hmm. benn bi nag man daf ma laal. waaye buñ ko tegee zéro retard. dama leen di avertir kuree génn. benn bi moo la bi moom daf ma laal directement. benn bi mais ni ma laale dama koy nettali ci kuree génn. Ah, est-ce que dama génn léegi. est-ce que duñu réew ñu réew kan réew ñu réew. su ma la nettalee lañ liñ ma sàcc. sàcc. lañ ma sàcc laa xam nga sàcc dafa am sàcc am. bañ la sàcc. man lan ma sàcc man. liñ la sàcc yow su ma ko nettalee ku rey génn. nanu reen gi léegi yéen yéen ñi déglu reetaan leen li ngeen di ree ba pare. sama papa monsieur le maire Bala Samb nuyu naa la. monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax. lañ ma sàcc ma mooy deuxième tos bi. lañ la sàcc. mais sax deuxième dose bi sax moo ma gën a seddale. ndax la kon Covid be gën a metti corona ji. mu bëgg xam. non man mii sax su ma xalaatee damay reetaan. si corona bi. <laughs> bi ma ko seetloo ma doon reetaan. génn naa ba pare laa génn. <laughs> ma seetloo ni lii lañ ma sàcc. monsieur le maire monsieur le maire par exemple bul ree sama sàcc. day dafa nag yow luñ la sàcc yow. <laughs> la. deuxième test bi dafa ko sàcc. moom mais moom mu ma gën a seddale sàcc. ñoo xaw a nduróole sàcc mais moo ma gën a seddale sàcc man daal li ñu sàcc laa bëgg xam <laughs> man bay bàyyi ñu commencé tusu corona ba pare lu nuy sol la lu takk ci nit lu nuy enu lu nuy gàddu lu mu doon sàcc gi mam mbay deuxième partie la kon baax na ñu dem covid sàcc gu ñàkk kersa cëy sàcc gu baadoo la sàcc gu mën toroxal gor sàcc gu fekk nit defar ba meuble hmm. nga wàññi dara jaar. <laughs> sàcc bi noonu la mu def. amul benn kër ak yar de. <laughs> mbokk yi lu ñuy wax kooku amul ak amul ak yar eh beneen góor a ngi yéen waaw kaay kaay kaay sama góor a ngi nii moom xam naa sama sàcc gi sax moo ma ciy jàppale bu ma ko nettalee xam naa noo ci doon solution yéen tamit loolu deuxième partie gi la góoru kër gi bëgg nañ jigéen tamit ma wootee appel à candidature góor rek góor ji di dugg di dugg si tamit <laughs> foofu na baaxul prometteuse bi ma mbay hmm. ab la boo xam ne mi ngi dëkk fii ci Parcelles Assainies. PA. Hmm, na nag lépp luy séntanu coronavirus mi ngi ci moom. ndeysaan. amul bu mu ci bàyyi nag. bi ci put bi bakken bi fièvre ba ci tànk bi yëpp mu ngi ci moom. Ah, waaye daal nee na fu ne jaar na fa. dem na sax hôpital fu ne dem na fu ñuy defal ko test mu mën ko wóor ni corona la ngir mu mën jël traitement yi ba nii kenn joxu ko test kenn defalu ko test. kenn jël siwu ko ma ci kër gi di yaataa yimbee te dem na pour pour ñu defal ko test dem na hôpital woote na def na démarche yi mën yëpp pour wax leen ni man li may sentir mag sama xarit mm. ay signe corona la mais ba nii ba nii ba nii nee na gisuñu kenn ku ko taxaw ngir oriente ko ni ko fii ngay jaar wala lii ngay def wala lee mm-hmm. waa ji nag nee na sonn na mm-hmm. te lii nag Mame Mbaye bu ñu paree foog ñu débat ci parce que li ñuy wax ci explosion cas communautaire yi lii moo ko andi. dañu ni woon asymptomatique yi kenn du leen testé. Mhm. mais ku dem ba am say symptôme wax dëgg yàlla yoon la ñu testé la. Mhm. ci mi dem xool yi premier test bi daal di ñëwaat. sama ma may safat eh, sama yaram bi jiitu benn eh, sama si di collègue eh, su ma toogee tuuti su ndox rek xool di muy dafay collègue waaw loolu la de. Mhm. depuis depuis kañ la loolu daal. Euh, am na léegi juróomi fan la. Mhm, juróomi fan ngay daan ko teg jafe-jafe boobu. waaw. léegi après gannaaw ba loo def. waa dem naa hôpital ñu defal ma ay garab. mu ne naa ko jël boo xam maa ngi jël garab yi. mais en fait wàññi kur mais def naa ba tey léegi nag te man damaa ak ay samay doom te dama ragal est-ce que la daal balaa mu mu gën a garaaw. parce que am sax xel boo xamante ne moom moom tam nee na kéebam bi mu ma lu ma doon def mu koy def moom it mhm. ulen bi di di di di di mhm. ah. da nga ragal daal yow daal mbas mi Covid bi nga ragal daal ngeen am quoi. waaw waaw damaa ragal boo ko donc nee nañ boo ko te boo ko teelee déclaré rek bu ma bu nekk a moom ak du moom moom bi mu. waaw loolu la daal. Mm-hmm. ma déclaré nga ko. waa demoon naa nag su fekkul ma def test ne su ma demee ñu ne ma yéegal ci kaw demal ci suuf demal ci kaw demal ci suuf de yàgg ñu am benn ñu ma jox ñu seet ku tudd Issa. may woote ci numéro mais day sonné mais day du décroché. yenn saa ko nga nekk jaay mu ngi jox ko ak keneen. mais moom ñibbi ci parce que ko depuis huit ma ñibbi. kon daal jëlee ci lu la neex daal maanaam. déedéet yow noo ko dundee kon situation la fekk am jàqare munoo fexe daal ba ñu la wax lu leer daal. ah wax mu daal Saliou Sow laa tudd. Mhm. parce que laa dëkk. man ñebe Touba Sénégal couleur la laay liggéey. parce que docteur yi waxuñu moom parce que normalement ñooñu ñoom ñoo la war a wax ni kaay ñu dugal la fii ñu soxna loolu laa yaakaaroon. ñu defal la test bu dee positif nag xayru bu dee positif nga dem sa yoon. yéen mhm. a naan ma ñu dal gauche droite ñu dal gauche droite. da mhm. am ku ñu wax bu ñu ko tudd ñu ne jox ma numéro bi. numéro tax ñu defee sama portable mais. aw ma ci daal lu satisfaire lu ma satisfaire. Mhm. kon daal yow sa sa xel daal eh, ci xale surtout la gën a jëm quoi ragal nga am ko wàll leen ko genre yi demee noonu. waaw daa wóoru quoi. daa wóoru yëf yi moom waaw wóorul te feebar bi moom teel ko teel ko teel ko nga nga ci teel la xool xam amoo ko nga dem. Mhm. moo gën a wóor. Mhm. moo gën a wóor. ok ok. kon boog dafa mel ni daal jot ci gars yi ci autorités yi moo jafe fu mu toll nii pour ñu mën la saa jël en man man man dama yaakaaroon ni lii moom parce que ñoo doon ñëw di jël si nit ñi léegi ñun suñu gis nit ñi ñooy dem ci ñoom kat mu normal soo ñëwee ñoom ñoom ñoo war a atte yi la xool bu dee bu dee bu dee li nga wax ñu xool bu dee am na xayrun bu dee amoon te na bu dee am nga ñu ñëw ñu woo say waa kër ñu nga ñu nga ñu nga defal xool naan demal góor droite góor droite man la ma doy na waar daal. léegi lan ngay te ñoom sax lu ñuy xalaat di naan nañ ne ah dañ ko comprendre pas. ban message ngay lancé. ah lii moom bu dee nii la moom feebar du gaaw a de bu dee nii moom feebar du gaaw a jóge ci. parce que wóorul. parce que nit moom boo amee boo amee ay signes yoo xamante da nga xaw a ragal nga dem ci ñoom. ñu la war a jàppal ñu xool est-ce que am def laa amoo da nga Mhm. su dee amoo ko nga dem bu dee am nga ko ñu xool la après commencé di faju parce que bu ñu parce que maa ngi ñu feebar bu xasee yàgg si yow moom pour nga pour nga wér chance la doon ah. mais bu dee teel ngaa teel ngaa kii man euh, teel ngaa faju man am nga chance pour pour pour génn si génn si oh, di jaajëfal Alassane Balde bi mm-hmm. nga xam ne moom moo ñu ko enregistré. Mm-hmm. Euh, Mame Mbaye dañu ne problème bi dafa posé wu depuis ba Covid bi ñëwee Sénégal ba tey. Mm-hmm. parce que man maa ngi fàttaliku bi may euh, bi muy doog a dugg may def sama émission 11h de Sen TV waxtaane ko am na benn euh, jeune bu woote woon bu dëkk Thiaroye même waa ji li mu wax ni moom lay sentir moom loolu la waxoon loolu la sentir woote na 15 15 ba sonn. woo service ministère ba sonn tamit numéro yi ñu ci joxe. kenn mënu koo jël jël ko en charge defal ko test pour mu xam fu muy féete. te loolu aussi bu ñu demee ba dëkk bi toll foofu loolu moo indi tey explosion yi. cas communautaire yi. <laughs> voilà li nga li nga wax lu am solo la sax. parce que euh, xam nga suñu problème saa su ne euh, mooy problème mu suivi fii ci fii ci réewum Sénégal parce que numéro numéro vert boobu nga doon wax foofu laa doon jëm. Euh, parce que bokk na ci initiative yi njëkk teg pour képp ku sentir dara sa yaram. Mhm. nga woote fa. Mhm. même à distance. Mhm. mën nañ la wax ndax signes yi moo fi nekkam di. bu fekkee gis nañ affaire yi ci yow. soit ñu déplacé ñoom ñoo déplacé wu. ak lépp arsenal bu muy àndal ñu ñëw jël la yóbbu la. ñu dem ba nga xam ne peut-être hôpitaux yi fees na. Euh, ñuy wax euh, léegi ah, duñ dem ci hôpitaux yi dañuy yóbbu ci hôtel yi léegi à domicile la ñuy wax. mais n'empêche numéro baa ngi fi ba léegi. nga woote ñu wax la mais le problème qui se pose mooy ñaata ñoo la wax ne damay woote kenn du ma jël. Mhm. kenn du ma décroché. day sonné dans le vide. a tellement. Mhm. Mhm. c'est parce qu'ils sont débordés. ils sont débordés certes qu'ils devraient faire je pense. Euh, euh, dañu war a ut benn benn service spécialisé boo xamante ne. loolu rek mooy nekk liggéeyam. koo xamante ne comme euh, nan laa la ko mën a expliquer c'est-à-dire ñu mettre sur pied benn équipe boo xam ne quel que soit nombre de cas yi ñu mën a déborder. Mhm. ñooñu loolu rek mooy doon seen liggéey c'est-à-dire mooy ñu mën identifier appels yi ñuy jot. Euh, ci ñi nga xamante ne c'est des supposés être malades de de Covid mhm. euh, su ko defee ñooñu leen mooy doon seen liggéey H24. xam nga tey jii par exemple benn ban exemple laa la ko mën a joxe mu ngi mel ni aujourd'hui benn. benn centre de téléphonie bu am benn numéro serveur vocal benn centre d' bu ñu par exemple mm-hmm. benn centre d' appel. xam nga centre d' appel boobu bu ne euh, clients yi dañuy woote tout le temps ci service clientèle bi te mënuñu jot nit ñi. tu tu imagines un peu réaction wu. Mm-hmm. du la mën a dal tey mantu am problème par exemple euh, mbay am problème ci téléphone am bëgg soxla benn service client boo xam ne loolu mo war a nekk liggéeyam ngay woote H24 jot. ndagam loolu moo la mën a créer frustration waxuma la ak yow ngay dund ak doute boo xamante ne yaa ngi jàpp ne danga feebar waaw wala déet mën na nekk loolu mën na bañ a nekk loolu hmm. mais euh, tant que ñoom ñu ngi ñu ngi concentré wu ci cette Euh, ci nombre de cas yu bëri yi ñu am bëgg traité loolu ba délaissé partie bi nga xamante ne moo war a jëm ci non seulement accueillir nit ñi mais répondre au téléphone en temps et en heure. Mhm. loolu c'est un réel problème pour ñu mën ko gérer. je trouve je me suis dit que bari bari certes mais pour rompre euh, chaîne contamination. je mhm. loolu. Euh, signes yi ngay jàll ñi nga xam ne les euh, asymptomatiques ñu xam ne. Euh, porteur la ñu porteur de te ñooy wàlle gën a gaaw wàlle parce que kenn du leen daw. foofu nga mën a jaar pour mën a kaay mën a wàññeeku. c' est vrai ay initiative gis nañ ko fi yaa ngi wax sànq peut-être dañoo surchargé wala sax liggéey bi dafa bari mais bu fekkoon dangay ngay ñu ne la am na ku nekk si ligne bi wala nga woote. ñu ne la mais day sonné day sonné. mais eh, kenn décroché poste boobu kon. téléphone bi instant boobu kenn wootewul. waaw mais yéen kon dégluwu leen ma de dama ne. yéen li ngeen wax noonu constat boobu partie de ce constat là c'est-à-dire man ak yéen ñoo bokk li ñuy wax. Mhm. partie de ce constat là dama ne normalul poste boobu muy sonné amul ko décroché. waaw ça veut nit ki loolu noonu. du fixe déjà téléphone bi du fixe numéro ay numéro téléphone portable la boobu moo am. des yu nga xam ne dañu leen et donc il ne travaille pas. non ah, en fait ngi sonné mi ngi ah, liggéey wala liggéey mais mi ngi sonné. numéro boo ci wootee day sonné en général kenn du la bu ñu teg jël ay nit teg leen fa. pour ñu mën a euh, répondre ñoo xam ne au moins boo leen woo c'est pas un membre lañ fay teg xamul dara ci santé mais ñi ñu fay teg daf nekk ay waa kër docteur yoo xam ne mën nañ la consulter à distance laa ko mën a jàppee. bu loolu euh, weesoo beneen initiative bi ñu jël. peut-être mhm. kii mën na ci am chance daje tese seex ñooñu mooy les douze mille relais. yoo xam ne wàcc nañ leen relais euh, communautaire relais waaye ñu ngi wàcc si mhm. Dakar ñoom ñu ngi wàcc Dakar mais euh, problème bi mooy mais ñooñu Mambay dañuy sensibiliser te et puis ñooñu amuñu leneen beneen rôle bu dul sensibilisation mais beneen nga jël te ko ci biti takkal dañ lay room ne takkal sa masque mais ñooñu mënuñu la wax ñoom loolu la mënuñu la wax dara dañ lay rox ne takkal sa masque wala ñu dugg ci salon de coiffure di sensibiliser nit ñi takk leen masque salon de euh, couture leen yooyu noonu ñooñu est que mën nañ la sensibiliser sensibilisation bu tax nga mën a moytu kii bi dafay nekk koo xam ne nii euh, jàng na ko pour mu wax nga mën ko déglu ba mu li li mu lay sensibiliser nga xam ne lii la. Hmm. loolu moo tax euh, ñi ñu oowee ay euh, diplômés en santé communautaire def nañu seen formation ba pare génne nañu université bu hmm. Thiès. Hmm. mais ñu ngi leen fi bàyyi kenn recruter wu leen pourquoi pas ñu recruter leen douze millions yi. nga au lieu jël benn euh, kenn koo xam ne salon la doon liggéey kenn koo xam ne peut-être ngi woon këram di toog kenn koo xam ne peut-être élève la demagul woon jàngi mais douze mille en fait ay diplômés en santé communautaire. def suivi bi bu ñu mhm. fekkee sa kër man nañ wax ak yow xool ndax yow yaa ngi signe yi am déet mhm. bu amee urgence ñu woote ne kii il faut ngeen jël bien sûr surtout bu jaree suivi ñu fekk la sa kër di la defal suivi parce que mhm. amatuñu place mais ñooñu kon liñ doon jàng c'est-à-dire il faut ñu récupérer ñi nga xamante ni ñëpp euh, utile nañu ci ci ci gestion crise bu ni mel problème bi mooy ñoom dañoo wàññi parce que Nabil Choucair bi mu tudd dañu doon def test yi. Mhm. ku fa doom ñëw am symptôme ak leneen ak leneen dañ lay def test ñoom. ñoom mhm. gaawoon nañ ci lool mais suñu demee ba réduire nombre test yi ñoom tamit bu ñu defalee nombre bi ñu leen wax ni moom nga war defal test après dañuy arrêté. Mhm. loolooy problème bi. il faut tamit test yi ñu lawal ko. parce que test massif bi moom mooy mën a tax ñu daal di nag xaw a cerner tuuti feebar bi problème bi du centre de santé yi mais il faut ñu lawal ko ba ci poste de santé yi. damay faral di wax ni am na poste de santé yoo xam ni ñoo mën fuuf ay centre bari na poste de santé yoo xam ne nit ñi mami yow boo feebaree. Mhm. sa li lay njëkk jege mu ngay gis. poste bi moo la gën a jege. déjà lépp loo xam ne dafa aajoo coronavirus da lay jox ay symptômes sibiru grippe. Mhm. grippe bi la lay jox. yow boo amee grippe doone damay dem Nabil Choucair wala damay dem fenn da ngay xool poste de santé bi la gën a jege mu jox la ay garab yoo xam ne peut dina la mën a calmer wàññi soj yooyu noonu. Mhm. donc test yi dañ ko war a lawal ci poste yi déjà. ñu utiyee leen jox leen li matériel bi nga xam ne moo war ngir ñu koy mën a sol mën a mën a mucc di defal nit ñi test yi surtout matériel mais mais Mambay bu ñu nee Sénégal euh, ñaar xaw ma ñetti structure ñoo fi habilité def test yi mhm. mais loolu tamit da koy yéexal on a un réel problème vraiment. soo xëyee ñi war a voyager un peu partout dans le monde ñi ngay rang. te ñooñu noonu ku ci dem da nga yóbbaale sa 40 000 francs fay cash yaa xëyti mu mami soo gisee ku lay fay cash 40 000 francs di nga xaar dajale gouvernement boo xam ne xamoo kañ lañ koy verser say kees. Mm-hmm. nañ waxante dëgg man mantulaay su ma ñëwee. bokk ci test yoo xam ne gouvernement moo ma ko may. Mambay Ndiaye Mambay Ndiaye mi ànd ak ay njabootam ñuy six personnes. ñu war def test bi tey tey fay la ko cash cash koy jël. Hmm. Mame Mbaye Ndiaye Mame Mbaye Ndiaye ngay jël donc nañu jël test yi ñu wàccee leen ci post yi lawal mhm. leen ci centre yi def ay test massif nit ñi ñëpp koo xam ni yow ñëw nga ni damaa am lii te daf may méngoo wopp coronavirus yàqati laa ñu defal la test bi mën la ber ci sa kër nga toog parce que fi mu fi mu toll nii nit ñi loolu lañu commencé à domicile donc nga beru toog di lekk sa kër di naan sa di naan say garab. faju est-ce que xam nga loolu sax dafay indi beneen problématique parce que xam nga <laughs> kër yi ñun ak ni ñu dëkkee. c'est-à-dire foofu contamination bi sax fa la gën a mën mhm. fa la gën a gaaw a wàllaatee nekkuñu ci ay kër yoo xamante par exemple yow da nekk ci sa benn appartement ça arrive mhm. rarement ni ñu dëkkee ak promiscuité bi ñu dëkkee ci biir kër yi maanaam am na yenn kër ci yenn gox yoo xamante boo duggee ci benn famille macha allah c'est des familles très nombreuses mhm. yow kooku noo koy béré ak foo koy béré ak naka nga mën a contrôler loolu mu contamination traitement on est à combien de cas loolu mooy explosion woon cas communautaire. on n'est pas à plus de 4000 cas. Ah, plus de 4000 euh, sous traitement 4000. dans ce pays mais c'est 12000 et quelques yoo xam ne laal na leen il faut trouver. 200 et quelques bientôt 300 euh, cas de décès. Ah. donc euh, te loolu moo expliqué. cas te li lay wan ni Mame Mbaye ma dog loxo li lay wan ne. mbir mi dañ ko dañ ko dañ ko mënuñu ko canaliser mooy mami. Mm. gis nga chaque jour dañ lay wax ne. Mm. décès am na. te chaque jour on te dit ni ñi nekk réanimation euh, nombre boobu dafay stable taxaw benn place rek wala muy yéeg. Mhm. ça veut dire que ni nit yi ñi ngi ci seen i kër di def seen i Covid seeni i kër. Mhm. benn moment mbir mi rëcc la wala amoon nga benn feebar mu commencé laa fatt bu ñu la yóbbu hôpital pour bëgg lay dugal ci salle de réanimation bi day trop tard. Mhm. fekk yow fatt nga ba faatu le temps que ñu lay jël pour defal la scanner defal la yeneen ak yeneen. pour mën la oh, ut fu ñu la tegal xool wóor leen ndax Covid la am du Covid moment boobu ñu war la defal test bi pour mu wóor leen ni yow Covid nga am moment boobu yow ñuy perdre temps boobu ci test bi moment boobu faatu nga yow. Mhm. c'est da ngay toog ba mu nekk ba nga toll ci benn euh, euh, euh, étape. benn bi nga xam ne nii. Mhm. dañ lay yóbbu daanaka mooy pare nga. dañ lay dem pour def constat peut-être décès bi. Mm. te pourtant ñoom dañuy wax ne nit yi dañuy bañ a dem hôpital faju parce que dañuy bañ ne Covid la ñu am ba keroog mu leen di ëpp doole ñu leen di indi bu ñëwee day trop tard ñu faatu mais nit yi am nañ Covid. Mm-hmm. am symptôme yi wax ne leen am nañ lii ñëw leen ngeen defal test bu dee moom la ngeen jox ñu garab yi ñu faju mais nit foofu la mën a yem. la nga mën a yem tamit. kaa tey bi ah foofu nga mën a yem. moom dem na ba jàpp ne moom Covid la am. waaw dem na envers eux. gis nañ ne peut-être euh, amul li mu bëgg mais day obligé toog këram ah. nga toog këram. toog këram bu amee soxla mu doxi ko. xëy liggéey. dem ci banque yi nga xam ne dañ leen waxoon ñu toog seen kër si tabaski ji ñu koy préparé nga foog ne nañ toog seen kër. déedéet dañ dem si tailleur bi. dem marché ba jëndi. Mm. dem di jëndi li ñuy di jëndi. Mm. dalal ba ñu dem mais après doo ci gis 15 jours après tabaski bi mu explosé. parce que en fait nit bu responsable nga ne ko demal nga faj sa bopp nga beru bu responsable lu. Mm. ba pare boole ci égoïste day def la ko neex. day génn parce que kenn mënu koo contrôler oui allo. Aba noo def. ah maa déglu waxtaan bi rek. ah Aba ñun kat dañuy dañuy kaas. waaw la noonu la. ah Aba. ah góor ñi. góor ñi benn ngi nii. ma may waaw ma may def moom ku baax la ku baax la. benn ngi nii de. ndeysaan ku baax la ku baax la bokkul ci gaa yi moom góoru benn la. ndeysaan bokkul fële. bul tax ma wax de rek la mën nekk nag. bul tax ma wax de. waaw bul wax bul wax waaw bul wax. yaa naa la monsieur le maire. jaajëf waay abaa naka yitteel. ah yow baax rek nga def ku la gis rek tey ba ñu lay njëkk a seet. yow baax nga ak a gën sama jumeau. yow moom. yaa gën na du tey. bu baax la sama partenaire de guerre et des terres arides. classe de guerre. waaw borom baax la. ñu nii de terre aride rek. jërëjëf ku wow koom ku amul ndox Massa. maa moom fu ne. yàgg na yee. ñoo dama sama kër sama xew. Hmm? ñëw sama kër sama xew. yee. sa bëgg laax nag de. moom mbay dama doon marqué si laax. ko yëgal mu comprendre loo ndekete. <laughs> maam Mbaye Evelyne Ahmed ñooyam. maa ngi ñooy mbana. ñoom duñu tënk. ak Ndeye Khady Thiam ak Soxna Fall. ñoom moom duñu tënk xam lu xew. wax nañ dëgg. ñii bëgg nañ xew. ak Ahmed Ahmed aussi. moom laa Ahmed Aïdara. Evelyne Mandiouba Mame Mbaye Ndiaye. Euh, Soxna Fall. Ndeye Khady Thiam ñoom ñaar sax am nañ tur ñoom. turu benn saf safal yi ne ci cin yi. Mm. ñoom lañ leen tuddee Ndeye Khady Thiam ak Soxna. <laughs> ndax bëgg xew. bor <laughs> umpale. ñooñu. <laughs> yàlla may na leen. yàlla baax na. baax rek. Mm. abaa Iba Sow mi. Iboso mi nee benn sac bu gris la daal di réeral ci biir am na machine Lenovo rouge ak gilet OMS ci benn taxi boo xam ni diggante Sétéo ak Sandaga la ko jële woon ko gis na ko wàcc ci 77 373 52 88. ah d' man nag am na benn soxna bu wax ne dafa euh, far xaalis diggante arrêt jàmm gën si Kaab Mbaaw ak dëgg si Kaab Mbaaw boo xam ni yitteel na rek soo ma wooyee mu boole la moom. ak keneen koo xam ne nga baal ma rek dafa tamit for xaalis mais dafa am ànd ak kaarante mu na Pape moo ci nekk. Hmm. borom kaarante boobu bu ñëwee denc na ko lu yàgg nag balaa tabaski ba léegi. Hmm. Pape Seck waaw su kiiwee rek waaw bu ñëwee rek moom moom foofu moom ñu jaañ muy fa am parce que hmm. bu niróo la kaarante bul ñëw. waaw loolu ma dem. acca <laughs> Voilà, merci beaucoup. Toujours des complications sur la route nationale. Depuis ce matin, c'est saturé. Hein, c'est la Sicabla vers Pocharoy, vers le rond-point. C'est là-bas aussi. Ça ralentit tout autour du rond-point. Ensuite, il a du côté de Boutoupekin, Foplé, des savoirs en cours. Il y a un bon déviation déviation humide. C'est ça, nous avons dit qu'on a mouillé Foplé, surtout nous avons dit qu'on a de Pékin, nous avons dit rond-point, vous savez, un rond-point, vous savez, ça aurait été aussi d'autres, nous avons dit qu'on a marché au poisson. À ce moment-là, le gars a a contexte rek mën ngeen jël échangeur bu bees bu nekk foofu terrasse da ngeen di wàccaat rek di suma ba rond point de la cité Lobar Fall progressé wuute le rond point bu Cambérène foofu la aussi d'autres complications ñu xaar ñu xam ne na ma jaaree foofu la c'est la route de Yaraax bu ngeen dépassé échangeur bi par souci mën ngeen progressé wuute le cafétéria se dégager sur le reste du trajet Mantoulaye ba ci kanam koona baax aca chimère ñu dem xooli machine ñëwaat hey sama gaay yi man la Pape Sidi Fall boobu ba léegi maa ngi wër offre bu may jox tarif yu accessible bu ànd ak qualité réseau bi gën ak Mixel je l'ai trouvé. Mixel 490 francs bénéficie de 60 minutes d'appel tout réseau 250 d'internet et 100 SMS valables deux jours. ak foo mënti nekk ak ku la neex amul perte réseau yaay su assi. dièse Gagne une Mitsubishi Expander avec Coca-Cola. Achète une bouteille d'un litre de Coca-Cola, Coca-Cola Vérifie sous la capsule et récupère ton lot dans un point de retrait agréé. Tu peux aussi gagner des milliers d'autres lots incroyables. Bois un Coca-Cola et gagne comme jamais. Qualité Soboa. En partenariat avec la Sénégalaise de l'automobile. Découvrez Chouette Agrumes. Pardon Chouette Agrumes Oui Savourez Chouette Agrumes, une boisson rafraîchissante au goût délicieux et exceptionnel. Chouette Agrumes est un pétillant cocktail de pamplemousse, citron, orange et de mandarine. Waouh C'est super ça Chouette Agrumes est disponible en bouteille de centilitres dans tous les points de vente au prix de vente conseillé de CFA. Chouette Agrumes, forte personnalité exigée. Qualité Soboa. pariel la ci 1xBet ak sa téléphone foo mënti nekk ak waxtu bu la neexee ubbil sa compte ak code promo Zik FM nga gagné 200 pour de bonus ci sa dépôt bu njëkk daaw leen ak gaaw parier ci site internet bi di www.1xBet.sn ak 1xBet yaay chef te ñoo xam lu baax te di ko def xanaa waa Ditale Ditale ñëwati dee ak ay xéewalam di leen defal nag ay réduction wàññi ci njëg bi maa la ko wax seen sachet 500 grammes ba waaw léegi day ñaari téeméer ak ñeent ko rek lay jar nga ne maa la ko wax ci fépp nag ci biir réew mi yéen consommateurs dem leen ngaa ko ma ne la vitale day waaw saay boo leen di xëyee mu leen di gën di bégal lekkam am na kaaraange set na neex na yomb na ay butéelu meew stérilisé anti et concentré non sucré meew ci Sénégal gii ma ne affaire bi vitale la vitale yow gars man la Pape Sidi Fall boobu ba bu may jox tarif yu accessible bu ànd ak qualité réseau bi gën Mixel je l'ai trouvé semaine bi daal maa ngi ak sama Mixel 690. Mixel 690 francs bénéficie de 100 minutes d'appel tout réseau plus 500 émo d'internet et SMS valable 7 jours. foo mën ci nekk ak ku amul perte réseau yaay suwaasi. Jazz Jazz. ñoo Zik FM. ma nekk chimère. xaju fii. joyeux anniversaire sama jëkkëru rakk ji di Bastila. happy birthday to you. chéri Adi chéri Oumy Laye. nekk mu dund. joyeux anniversaire Libaas. yaa ngi lay waajal sama anniversaire. kañ la mami. ah itamit léegi mu ñëw le 29 août léegi mu ñëw. août. waaw dama leen koy ah, teel a wax rek. le 29 août waaw dañ koy waajal dañ koy ah, waajal. semaine bi bi ci topp daal maanaam. incha allah ah, j'espère que dina bañ a mel ni anniversaire El Hadji Mouhamadoul Mansour. ah lan lan. <laughs> anniversaire kat mami dañu koy yëgal waaye day am yu muy àndal. baadu dara dara waaye damay anif rek toog. anif bi dara raxu ci. ah déedéet ah moom da doon xaar ngeen kii. ngeen hmm. yëngu. maa mbay ci gi nee na. Cikito nee na sa benn turandoo bu nekk euh, Grand Yoff mi ngi lay. Cikito voilà man léegi ma yónnee message. turandoo bi nekk. nee na sama turandoo jaam sama turandoo la bu tax non non sama sama. maam Mbaye la tudd sama rakk moom ko tuddee. Ah. nee na dafa ñëw dégg ñu naan maam Mbaye toogal. maam Mbaye kii ndeket mu ñëw di tiim bu nekk ndeket yow euh, ban mambay Mbaye lañ la tuddee mu nekk euh, bu nekk Tëngéej mu nekk bu nekk fan mu nekk seen TV mu nekk yéen ñaar bokk leen dara. jafe-jafe <laughs> parce que bu xeex si suba gi ba ngoon gi. waaw moom jël sa juróom-ñaar jikko di. xëy na papa ji la ko jël sama rakk ji dafa terrible <laughs> na. ndeysaan. yal na yàlla gudd sàmm ko bu baax a baax. yal na ko yàlla sàmm def ko mag. amiin amiin maam Bay soppi ko nag mu mel ni turandoom. maam Bay yal na ko yàlla soppi mu mel ni turandoom. dinaa lewet doom mu turandoom de. dëgg yàlla moom benn problème. turandoom ak a yaru. waaw yaru na moom dëgg yàlla. dégg nga Ndeye Oumy Thioub maa ngi lay nuyu. <laughs> sama mag ju ji kati gay Italie maa ngi lay nuyu. ma ne ma tàgg sax. ab sa ndom pharmacien nu jeeg ji maa ngi lay nuyu maa mbay ma boole laak ab sa ndom. waaw ah, lu muy def. pharmacien nu jeeg ji. Hmm. dalay gaañ de dañuy faj de. ma boole ko madame. dalay blessé waaw. <laughs> waaw waaw sa. bu bu sa boole naa la ak madame mu maa mbay de. dalay blessé de li ma xajul ci moom. sama waa jooju. <laughs> <laughs> cey mbaay. <laughs> fekk Mantu daf may bëgg di wax loo yow kay <laughs> waxoon ko bëgg wax Mantu day génne ci ko nit. maa mbay nag ñaar dañoo xamul baax na. <laughs> Eh, Mantu sama sama sama càmmiñ ji dañ ko dañ ko euh, je pense que dafa am ku ku ñu agressé voilà mercredi passé. Petit Mbaaw nee na ñeenti nit daal ñoo ko dogaale ci mm. scooter. yóbbu nañu benn machine Beverly nag immatriculée AA 590 BP pour ku ko gis. ñu dimbali rek woote ci 77 646 43 35 bàyyi leen dégraissé gi ngeen nekk. te moom machine am rek la ñu yóbbu. jamono ji. gi ñi nekkee dañ ko arrêté. sant yàlla cay lii. baax na sant yàlla gars yi sàcc euh, euh, ñu nuyu bu baax a baax euh, sama mag ju baax jooju Oumou Dia. Mhm. di ko wax ni bienvenue au Sénégal. ah ngoogu daal. daa ñëw daa ñëw ci réew ci réew mu neex nag. waaw waaw ñëw na ci réew mu bu nangul benn stress. Mm, mm. yow réew mi nanguwuñu stress ma. ñu koy doy ko dara nag wax dëgg yàlla. Ah. teraanga andul ak stress. bàyyi mbay jàppandal bi nag sama mm. sama frère boobu maa ngi koy ziar baax. Mm-hmm. Sala l'international également mu ngi seetaan. ngeen nuyu bu baax. bu ziar bu baax la Sala. ok kenn du moom. ma hmm? kenn du moom. Fadou. Hmm. amul morom. Hmm. benn la fi benn la fi. Hmm, ok amul morom. bu ànneex mbégte day gën. sala sama jigéen ñi. fii laa ko waxee de. fii laa ko waxee de. Eh, sama mbokk lébu yëpp nag maa ngi leen di nuyu bu baax nag. wallaay waa Badni waa Cogéej eh, waa Badni Tëngéej jokkul Njaayeen jokkul kaw jokkul eh, wàgg. xeer. dëkk Cité Gabon. Médine bi nga xam ne fa laay yeewoo. man leen yu baax mm, ñoom mm. ñoom coxo ñoom gendel mm, ah nuyu ma sama sama mag bi maam Ba su ma ba ca Bargny. Ah, waa Bargny ah Bargny nag dama lay woo di nuyu de. man waa Bargny laa nag maam. Banti. Bargny nen na Bargny euh, ngudda ngudda waaw waaw man kipp laa bokk Bargny kipp la ngudda kipp ah, kay benn la ngudda kipp waaw kipp kipp waa kipp si guy gi maa ngi leen di nuyu <laughs> yow mantu an say mbokki lébu maa ngi nuyu ñëpp waa Tëngéej Abdoulaye Diagne maa ngi lay nuyu man maa ngi dëkk maa maa ngi dëkk Tëngéej hmm? diggante Tëngéej ak Ndakaaru jal ma maam <laughs> jal job jal job ma maam koo ña gay ma maam waaw sama sama rakk ji maa ngi koy nuyu Khadija mu ngi may dóor tudd yow sama la topp nag sama la topp maay moroomam bu may présenté sa daan sama rakk la. ndeysaan jigéen ak góor ndeysaan Khadija ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax sama ku baax la wax dëgg yàlla. maam Mbaye amul benn problème. baax na lewet na de. Mm. maam amoo xarit bu mel ni yow. Mm. Mm. <laughs> baax na bi yaa manam Ndiaye fii ma ne deuxième tës bi <laughs> fii moom dooral ko fi takkee ci tës bi donc xaaral. Kumba Démé Dia Samba Démé Dia déedéet mënta ne. ma ne deuxième tës bi. ma ne ku réeg yéen dootuñu tës de. nanu réeg kon. <laughs> pour yéen damay foo nag foofu. waa léegi baal ñu réeg ba pare. ma ne deuxième tës bi ku réeg yéen. Ah. man damaa génn ba pare. <laughs> expliqué déjà. gis nga maanaam ñoo xam ne ay réer rek la ñuy def. sama bëgguma <laughs> kenn ku ñàkk xool xool léegi ñu muñ. ok. Chimère yow laay bi. ku ne ñu kii moo gën a doon ñëpp di ci kekku yi mu ne kekku ci suuf. bu waa ji dafa gaare otoom. Hmm. oto nga ne ci géejawaay. Hmm. chimère sàcc ñu batterie. Hmm. ubbi oto bi. dajji wuñ ko. defuñu lenn. moom daal dañoo jël seen kirib teg jël seeni mool teg ay briques wekki kat pneu <laughs> yi. man xam nga li moo tax bëgguma woon wax lii. ñoom kay li ñu yóbbu mooy ba dem. Youssou Fall Youssou Fall maa ngi ah, bu ñu bàyyi bu ne bëpp ci suuf. li laa doon bañ li laa doon bañ. baal am nga ni ñàkk kese la. oto bu ne bëpp ci suuf kay. comme lu ñu laalal basam oto ba dañ ko doon jaay de bu ñu wékki quatre pneus gaare seen taxi yëpp ci pneu bàyyi oto ba kilit ba ko mutu oto nañu baale kirit ji. mais kirit bi buñ ko sànnee oto bi mbëpp loolu la ñuy baal. ah kon nañ ko ajax kirit bi bàyyi ko noonu. dañoo oto seen pneu ñoom dem seen yoon. bàyyi ko ak bi bàyyi ko kirit bi mu noonu. amul am mu ne. bii sàcc bu ñàkk kers. ngelaw li di jaar fu ne jeex. ah ilaha illallah. alhamdulilah buñ juree jàmm. ay waay lii moo. buñ juree jàmm. Euh, Mami Samb. borom at bi ma jégalu bu baax a baax. Mami Samb. baal ma baal ma baal ma baal. oto bees tàq la. xoolal bii oto rek. xoolal bi est-ce que bu rafet. ñu def ko trois étages léegi bàyyi ko aj nañ ko ci kaw rek bàyyi foofu. gis nga nañ ko def. oto bi léegi nii nii nii nii. te avant moom avant moom ci mois de juin bi kii tamit def nañ ko ko mi ngi nii. Eh, eh, eh, ñii ñii. mais ñoom kon soxla yi ñu am yëpp ci pneu bi la nekk ci pneu lañ soxla. non mami ñii ñu ma gën a sedd la. yow lu man samay gentil lañu ñu wekki. mais yaa ngi sëy ko mais loolu première étape soxla woon ngay foofu. waaw man tere laa nar a faatu ma yàlla. mami daal démb maa wàcc xool sama oto ma ni mii man dañ ma defal pneu secours ñi ma doon raxasal wala lu xew. Eh, eh, Mouhamed Alamine sama benn càmm nee na nee na pneu moo gën a cher batterie de. mami. <laughs> yow mu seen yow day xool man dama wàcc rek gis benn pneu bi daa xaw a ñuul ci man. Eh. man ni man xanaa sama pneu bi dafa peer ñu defal ma ci pneu secours ñu ma doon sa <laughs> ma arrière pneu boobu tamit ñuul. ma dem ci ginnaaw. boobu tam ñaar ci ginnaaw ñuul. ma man sama pneu yi melul woon nii am na lu ci manqué. ba aw na jël sama temps. réfléchir na vingt minutes vingt minutes. maa may man dong ci mbedd bi vingt minutes. di xalaat ndax dañoo wekki samay pneu changer ma. ma ne sàcc du amee nii jot. man daal philosophé naa lu ne. ba seeg ma ne waaye ñu yóbbu. nga dugg Ford. ku for ay gentil Ford dimbali ma am na Ford bu ñu ci def ci digg bi. <laughs> yow comme te tooju la rek comme ni ñu toojee kii bàyyi ko ci ngelaw li. maam bay tooju ga doon sedd lañ ma def. maam bay génnal xool sama oto bi. yàq na design bi lépp ñaaw. waaye bi kii moom dalu law. maam bay liñ ma def a gën a ñaaw. waaye yaa ngi daw ba léegi. man lay sàcc nee nga la. moom bu ko fekk. non xeetu sàcc gi moo ñaaw yu yóbbu woon lépp moo ma gënal ñu sàcc gentil rek bàyyi oto bi noonu ak pneu yu ñuul yi. oto bi. dafa sàcc yoo xam ne façon bi moo ñàkk kersa. ci ma ñu déglu borom pneu bi. dañ ma am sama oto bu ñu ñu sàcc ay pënam ko waaw démb dañ ko sàcc démb ay ay quatorze heures yooyu. lan mooy loolu fan nga ko gaare woon. maa ngi ko gaare sama koñ laa ko gaare woon nag. amul woon gaare ji bon gardien yi xam nga gardien bëccëg moom du fa faral di nekk mais dëkkandoo yi ñu ngi fa gis nañ ko mais dañu yaakaar ne rek maa yoon yónni wala man xam nga kuy dépendre parce que nee nañ kooku dafa sol tenue tenue de travail la sol ku sol tenue de travail di démonte pano da ngay jàpp bëccëg ndar bëccëg ndar kàmm bëccëg ndar kàmm gaynde gis nañ ko gis nañ ko mais ku koo gis muy démonte pano pour yow da nga yaakaar ne rek kuy def kuy réparer rek am foofu dafa bari waaw am na fa am na fa weer bële passé amaat na fa tey démb waaw waaw léegi ngay dénoncé may dénoncé loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla du nekkul acte bu rafet te pono yi rek la ñuy dindi yóbbu quoi. kat pono yëpp la dindi kalal la oto bi si seen temps bu ñu koy seen temps. billaay dañu jël seen temps. loolu doy na waar de. parce que dañu jël seen ba pare du nekk benn nit. du nekk benn nit dafa am kuy taxaw di superviser di xool. parce que man démb am na sama benn sama sama benn dëkkandoo bu romb bu leen romb ñu ñu ñu ñuy démonte ko nii. mu ne leen li ngeen est ce li ngeen a nii yéen a ko moom ñu ne ko waaw bu ñu paree Bourguiba lañ ko yóbbu. xam nañ ne Bourguiba laa nekk. waaw man man pëlier la lii nga da ngay defar ay damay defar oto. ok oto bi da nga ko yóbbuwoon sa koñ gaare ko foofu. dama ko defoon yóbbuwoon sama koñ ko di ko jaay. ok nga doon jaay. da ngay jaay oto defoon à vendre. waaw def naa ci à vendre sama numéro téléphone ma ngi ci. ok mais kooku ñu kooku gis ñooñu noonu doon démonter pneu yi mënu leen ndax ay euh, li ñu li si parole yàggul. waaw. ok bi yow na def. maa ngi fii. yow yaay euh, defarkatu pono bi. waaw maay defarkatu pono bi ñii kii ñoo ko koñ. Mhm. léegi waa ji dafa ñëw. bi mu ñëwee ay 14 heures. Mhm. mu ni ma abal ma kirij. Mhm. ma ne ko du ma ko ab leen noonu. mu kon téye sama téléphone ma ne ko non du ma téléphone motu ma garanti parce que su ma téye téléphone bi. téléphone bi mën a yàqu. mu ne ma kon téyel caabi oto bi mu ñëw. léegi ma ko joxee ca ma joxee caabi oto bi ma teg ko ci ko taawul bi. mu ne ma wala nga boolee ma sax ak booy bi. parce que damay changé carte pneu yi. ñu waxaale ñaata nga ñaata laa lay fay. ma ne ko 5000 mu ne ma 5000 dafa bëri 4000 ma ne ko non 5000 mooy baax parce que déplacement bee tax. mu ne ma garaawul. ma daal ni booy bi àndal ak moom daal ni ko kon yóbbaale caabi ji comme yaa ngi ànd ak booy bi yóbbaale caabi ji. léegi mu ànd ak booy bi booy bi jàppale ko ba mu kiri kaat pënë yëpp. léegi kale ko daal di jël taxi dem. léegi bi booy bi ñëwee maa ngi koy tooñ sax ma ne ko yow waa ji pënë yi dañul nga bàyyi fa sama kiri mu ne ma ah kañ deñ na. nee na Grand Dakar la jënde pneu yi daf koy dem monter su ñëwee woo ma ñu ñu monter ko. te te loolu te loolu waa ji démonter pneu oto waa ji nii moom la. waa waa jël waa la oto même oto bi la. même personne bi la même personne bi la. Mhm. parce que kii ñoo bokk koñ. yow kooku tey boo ne koo jàkk di ko xam. man su ma ko gisoon dinaa ko xam. boo ko doon décrire nit ñi lay nan nan lan ngay wax. dafa xaw a njool mhm. amul yaram nag mais dafa xaw a njool tuuti sol benn tenue mécanicien mhm. waaw. boo ko gisee daal mécanicien nga koy boo ko gisee mécanicien nga koy teg. Mhm. waaw. léegi bi ma wàcc bi ma toogee lu yàgg gisuma ko. Mhm. ba ma wàcc parce que man koñ boobu laa dëkk bi may wàcc fàtte naa bi may retourné laa gis oto bi. Mhm. ba léegi kenn monté wul pneu yi. kirij bi nekk ci ma ne mais waa ji lii est-ce normal la parce que monté pneu yàggeewul noonu. léegi ci laa xëy dem dem police. de déclaré ko léegi bi ma koy déclaré. mu ni ma waa ni ma demal nga indi nga nga relevé numéro oto bi. bi may dem di ñëw si di relever numéro oto bi ci laa fekk Ahmed mii fekk moom xamante nañ ci laa ko fekk ma ne ana borom oto bi ñu ñu ne ma Ahmed Ahmed mooy borom oto bi ci laa fekk oto bi amul plaque oto venant la léegi bi ma bi ma numéro numéro bi si Ahmed def à bi laa relever bi ma ko relever ba pare ma gis gars yi taxaw may leen kan moo gaare oto bi après ci la waaj beneen waay kooku tam tolio la la ni ma Ahmed boo ko moom ma ne ko mais kii dama ko sama cric pour mu monter pono yi jëf gisaatuma ko ñu ne ma pneu yi dañ ko sàcc. léegi mais crise moom. crise bi ba léegi mu ngi ci oto bi. Ah ba léegi dafa tóoj oto bi bàyyi ko. tóoj oto bi dafa tóoj oto bi bàyyi ko noonu. waaw. léegi nag man may lancé appel parce que man moom tey yettu dal na ma ba pare. mais pour sama moroomi vulcanisateur ak ak képp kuy gaare ci oto wala kuy gis kuy démonter oto ci koñ nga bàyyi ci xel. waaw parce que waa ji sàcc la d'accord sëñ bi merci beaucoup yow ku baax yow tamit même ak ak ñu def nii. waaw man lañ ko njëkk def man ñi ngi ma ko def euh, depuis le deux septième mois deux mille vingt lañ ma ko def. Mhm. ay ver ñu ngi ma ko def vers treize heures lañ ma woo téléphone ne ma jëwriñ ma wuyu ñu ne ma jël nañ say say pneu. ma lan kan moo ko jël ñu ne ma non benn waay moo fi ñëw mécanicien cric affaire yi quatre pneu yi yóbbu ko defal ma kal tegal ma ñaari cric sax la ma tegal kalato bi yóbbu quatre pneu yi. waaw noonu daal laa toll dem naa police dem naa fépp def naa samay plainte waaye ba daal maa ngi déglu waaw yow daal euh, depuis depuis boobu ba léegi tamit yow tamit amaatoo ci benn benn benn écho. dem naa fépp fuy jaay pën dem naa fa wër naa ñu ma koy déclaré waaye ba léegi daal aw ma ci benn écho. Hmm. benn écho daal aw ma ko ci. te quatre pën yi boo dee xool xaalis la quoi. parce que dafay yomb pën yi am na ñu koy jaayee trois cent mille am na ñu koy jaayee venant deux cinquante mille. parce que oto yi ay oto de luxe la quoi. waaw ay Ford Escape la 2014 la ñaar yëpp ay ñaar yëpp. Hmm. waaw ñaar yëpp ay ay oto de luxe la ba booy xool jamono ñu toll nii seen pièce moo fi gën a jar nit ñi tamit nit ñi tamit ba booy xool moom lañ gën a bëgg. waaw mooy Ford Escape 2014 yi. Mhm. waaw. te boo xoolee même secteur la même koñ bi la. même secteur la moom HLM 4 lañ ko ko defee man HLM cinq lañ ma ko defee. ñu ngi ma ko defee HLM 5 carré Baye Fall am na gardien waaye gardien bi guddi gi la fay nekk matin bi waa ji même heure la ñëw tamit defaat ko. Euh, euh, def ko sama xarit bi. moom bëccëg la ko def quoi. waaw bëccëg la koy def ba noppi effectivement ñaar nit la ñuy doon loolu mooy yëm ñëpp te dañuy ñëw bi biñ ñëwee sax ba ci carré bi xale yi leen doon jàppale biñ yëgee ni waa ji sàcc la affaire métti leen lool. xanaa xanaa léegi da ngeen di lancé appel euh, koñ bi ngeen di gox yooyu noonu képp koo képp kuy démonté ay pono léegi bëccëg bu ngeen ko bu ñu ko gisee ñu xam ne sàcc la nañ ko dénoncé. adduna la ñuy lancé appel ndaxte day phénomène boo xam ne am na états uni waaye Sénégal képp kuñ gisati. képp képp kuñ gisati mu nekk ci oto di kirij oto jaamur nañ jëm yëglu ci moom wax ak moom ndaxte am na sàcc boo xam ne jamono ñu toll nii moo xew ci àdduna dañuy kirij sa oto jël say kat pëna maa ngi ñaan nag maa ngi lancé appel képp même quartier yëpp yëpp nekk Sénégal foo gis nit mu taxaw ci oto jaamur di kirij da ngeen jàpp ni kooku sàcc la. d'accord sëñ bi jërëjëf Zik FM mi ngi leen jaajëfal. waaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm te xam nañ ni fii mooy rajo solution te lu waay jaaxle bu ñëwee fii yàlla dina ko saafara te te li ci gën doy waar mooy taximaan gars yi buñ pare paree taxi la ñuy jël te buñ ko toppee incha allah xam naa taximaan bi du ñàkk fa la leen yóbbu. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatullah. taala wa barakatu. man de taximan bu rab yëpp ay gentil bu am ford ci digg bi bu gën <laughs> a. ku sa cas. taximan bu yëpp bu yëpp ñëwal fii ci buntu bi drôle mais duma nangu saa ci suñu àdduna de. mais dafa jaaduwul. may nañ auditeur di 10 minutes. ku ne mm. dugg wax une minute sàcc bu gën a boo xam ne def nañ la ko mu reetaan lu nga nettali ko mm. ñu defanteeg sàcc yi ci noonu reetaan ah nooy def du ñu nangu ñu yàq suñu àdduna de Mambaye. mais jaaduwul 88 628 89 90 ngeen bës 1. wekki pëna ba bàyyi oto ba tamit. ñu nettali fukki sàcc rek yoo xam ne. reetaanu na ñu ñu ko sàcc yi yi tamit. waaw waaw oto boo gàddu. ne ko ne nettali sax a bi à vendre. à vendre la bees kon kay na changé kii bi rek andi bi. mais xoolal mais xoolal bi franchement nag fekk ñeenti pëna dem réew mi tamit. loolu lañ jël léegi bi mu jël yëkkati oto bi kirij ko ñu jàppale ko. ñaar la ñuy doon na audace boobu kooku bu ñu ko bettoon foofu lu muy wax. waaw mais c'est que xam nga. duñ ko bett déjà tenu le sol. waaw day ça va paraître tellement naturel. daf leen mën maay mécanicien bi la quoi. lii de bu ko defee ci quartier populaire lii kenn sañu ko def euh, jokkul wala dàngu. alal nga taxi nag yëpp te ba ah, yenn xeetu sàcc yi nii. Ah, xam nga Mame Mbaye dëkku Lebu yi daaw ñu fa faral di ñemee sàcc. mais li tax ñu fay sàcc mooy. ki la sàcc boo ko jàppee doo ko néegu dóor ndax danga koy xam-xam ndayam xam baayam parce dëkk bi. ci dëkk ba lay dëkk. waaw bu fekkee daf loolooy problème bi léegi ñun loolooy suñu ñun léegi dëkku lébu yi ñun. Mm-hmm. waaw c'est vrai nag de suñu problème maslaa bi. non mais parce que nit ci àll ba dem tëngee di sàcc. problème maa nga dem Yoff di sàcc maa nga dem Cambérène di sàcc ah non. problème mu Sénégal ngay wax da nga ñëw maslaa nag de. Ah, tey jii sa question mooy kii bi nga ko jàppoon dañ di ko dóor fi nga gis ko taxaw fee na waaye dimbali leen ko leen ma dañ ko koo def defuñu ko dara. kenn defuñu ko dara bëggul yomb dong la. waaye nag déedéet nag mais méthode bi moom bii moom doxul moom franchement. simple nag moom doxul nag. am na classe de moom tuuj na oto bi. mantu moom ay gendarme dañu jël jël oto ba kii ko. mantu tuuti euh, Ibrahima Mouhamed Seydi sa États-Unis mu ngi lay masawu dégg nga dégg nga yàlla na yàlla may ay gendarme yu yees. ah waaw foog Mouhamed amiin Mouhamed amiin rek. mantu yow foog ma sàcc ba daa daa niit sa oto ba mu leer. <laughs> mu yóbbu gentil. Mouhamed Mbaye bu ne baa bàyyi dañ bëgg na secours yi rek. waaw <laughs> ah, mënul ubbi maal bi man man kay moom mënul ubbi maal bi mais xam naa ni. Euh, façon bi ñu ko defee moom ñàkk na kersa xeetu ñàkk kersa goo xam ne. ki ma bëggoon ñu sàcc ay gentil kenn sàccul yoo sax. moom euh, moom kenn du laal ay gentil. si mère Diop mère Diop façon sàcc boo xam ne. Mm. man de ma sa eh, sàcc samay tàngal may jooy tàngal. sama pochette wadd ma waaj taxi sama pochette wadd xaalis bu baree ngi ci woon nag. ma gi toog basaag benn xale bu góor ñëw ne ma yow yaay mantulaay ma ne ko waaw mun ma say pièces sa permis say pièces moo nekk ci pochette bii de ma ne ko dama koo wadd dan koon man daal may wër tàngal yi ko jënde woon ci supermarché bii nii tàngal yu neex la woon nag maa daal may wër di wër di wër di wër gisuma xaas bi aw ma problème mais tàngal laa gisul ma toog <laughs> ci karo toog di boobu <laughs> mami mami boobu ah, ma toog di jooy <laughs> foo laal après. xoolal ñu naan maan yow loo jël ma leen tàmm tàng lii neex ba dee te xam naa suba rek laa koy amaat suba rek laay xëyaat. <laughs> waaye man yàlla bu ma faatu tey. <laughs> yow kay yaa ngi doon wax li tax tàngali tollu la fenn. mu <laughs> toll woon foofu. léegi fekk la ci benn état boo xam ne sàcc la sàcc goo xam ne foo laamul rek foofu ñuul. wóor na yàlla. nga doon yàlla musal ci sàcc bu ñàkk kersa. wallaay wallaay man de man man man ma sam ba fajar gi la ñu ko def man 4 heures du matin. wóoy wóoy mooy bii. téléphone bi mais mujjee am nii. sama rakk nee na mu tudd sa téléphone bi ak ni ñu ko jëlee. man daa maa nekk di compiler nii ah, si ah, taxi bi ma jël toog ci côté bi nii. di compiler ba tollu côté bu Pikine fu muy tourné moom. si avant nga yegg foofu la euh, foofu man daa yëgu maa ku ne coppet ko maa ngi compiler de. jéggi man daa fi may gestu man ni mu ko jëlee laalul samay baaraam laalul vitre oto bi moom daa def na ko. jël ak tourné xam nga euh, sa benn xel femme la ñooy ànd tout euh, saa bu ñuy liggéey dama koy jël si waat moom moo ne eh portable bi mais man mi ñu jël sama portable sax. da nga choqué. yi war a jël nañu téléphone waaw da nga choqué action bee gaaw action bee gaaw. mu yóbbu ko noonu. ah nooy def <laughs> naanu ma pipé ma moo. mu gàddu portable bi dem. mën naa ma toog nii rek. loolu sàcc bi civilisé. ba ni ma yegg seen ah, man bi ñu ma def moom civilisé wul. amul bruit dara xel. ma nekk mënoon naa xaar ma envoyé compilation bi te xam ne su ma ñëwee fi dama war a compilé waat à zéro. wala moom mu jël ko envoyé ma ko ba pare fay portable bi. wallaay xam na. wallaay wallaay boobu maa may sàcc bi civilisé. barki yàlla dafa am xeet sàcc yoo xam ne ñoo civilisé même ñoo xam ne civilisé wul. le grand animateur genre euh, nee na nee na benn xaritam Sega tailleur la veille tabaski lañ dugg ci atelier sàcc reeram nee na fond rek lañ jël fond rek <laughs> tailleur la ñu sàcc dem. waaye réew mi rek. def ñu ci woon mooy dagg sa xol ma mi ba amul a tane. non na xeetu yoo xam ni. xaw nga a jooy. da ngaa fàtte sama agression ba. ba ma ba ma demee baali ji ci borom woykat bu mag ba. ñu doon baal. maa mag ba xam nga a baal. ma baal gëm mentu ñu may déposé sama buntu ci lañ ma agressé agressé gu métti gi juróom benn nit yi waaye ñoom dañoo jël li ñuy jël ba pare bëgg na bëgg a yóbbaale mbuusu brioche doore nga man ba ma sama ñu baal ma ci publicité bi sama ndekki li sama ndekki li bëgg koo yóbbu du dem ngay munu leen ma sàcc xëy ndékki sama ndékki sama sëriñ bi sama sëriñ bi sama sëriñ bi touriste nee na ma sàcc bi moom safara la jëm sàcc sàcc sa ah, chante sàcc samay sàcc nga déggee sama croissant loolu ah, nga nga ngooy ci muus bi rek xoola ma xumande laa nee aljuma ji am na benn waay boo xam ne dafa ñëw këram di ñaan ndox pour naan premier étage ñooñu bañ mu yéeg deuxième ci ñoom ñooñu ubbil ko di ko may le temps ñu koy may sàcc na ordinateur sàcc téléphone madame xoolal loolu xoolal loolu xoolal loolu kooku li mu bëggoon naa. non ay sàcc yu bizarre lañ lay may. ndox ma rees na ay sàcc yu bizarre sax. te dañoo aay nag daf mel ni ku ñuy takk. am na si ñoo xam ne dafa am daa am lu ñuy taari de. dafa am lu ñu àndal. bu fekk def lu ñuy def yow. bu ñu demee ngay doog a xam ne. Euh, ñii def nañ la dara. en tout cas ma wax la réew mi ku ne ñam nga nag. dañoo bëri stratégie. sàcc rek ku ne ñam nga ku ne ñam nga. ku ne ñam nga ku ne ñam nga. Mhm. ku ne ñam nga ci sàcc bés boo xam ne boo ko nettali nii. chimère bu ñu la def yow. chimère. ci liñ ko war a bu ñu la may. liñ ko war a sàcc sàcc guñ ko ko. kii ah la sàcc gu neex. luñ la war a sàcc sàcc. <laughs> batterie nee na moom batterie batterie moom ñu. rajo rajo rajo. dëgg. rajo oto ba la <laughs> ñu rajo oto bi la ba sàcc rajo oto dugg ci biir sàcc rajo bi. keroog la Chimère naqari ku ñu wekki. <laughs> kii ku fi nekk am na sa bés. waaw am ñu ñuy déglu. ay yéen sàcc yi yéen tamit. ñu seen bés dañuy daaw da daaw. oui ma sàcc yi dédicace à a vraiment am ngeen jox nag tey nag yéen a moom. tey nag yéen a eh, ayem eh, vidéo a doon tey tey journée euh, euh, euh, journée kii la. <laughs> waaw. tey amul sàcc amul dara nu waay neex def. sàcc dee tey sàcc duñ génne. sàcc dee la sàcc dee waaw. Euh, dañ ko waroon di déclarer par jour euh, par chaque année nag. yenn xeetu sàcc yi ñàkk nga xam ne boobaa vraiment je waaw bu baax nag. vous salut dédicace à xam naa ne heure nelaw. nelaw li ngeen di œuvrer. ah ëpp na ñenn ñi dañ koy def de emploi du temps la ñii dañuy xëy suba ñuy gont. kenn mësul gis lii sàcc rek. aywa sama xarit taxi man ma ñett yoon lañ sàcc versement moom it. na muñ. sàcc versement bi. na mu agressé xanaa laal li tapis bi. ndeysaan te fu nekk nag la ñuy denc. Eh, léegi nag si maanaam si seen i kawas la ñuy denc seen xaalis. boo xamee ñu ne <laughs> ci oto bi ñu yóbbu. nga def ko conseil léegi ba doo ko roof sa tubay buñ la agressé da <laughs> <laughs> la yullil. aywa baal leen. agressé bi naa la yullil la ñuy laal li. laal li nga yor. nga war a yeb bi teg par benn. ñoom <laughs> fi ñuy toog noonu fi ñuy teg seen tànk. xam nga mooy seen tapis bi ne ci suuf. moom la ñuy laal li. fekk xaalis bi bi laay jël versement. léegi nit ñi fu nekk fu nekk la ñuy denc. ñoo mën a tas yaakaar. léeg-léeg nga yaakaar sa mbir loo xam ñu xëy def la ci noo xam ni. tas yaakaar yal nañu musal ci sàcc bi tas yaakaar. joyeux anniversaire Ablaye Sarr mu penn mbay. Mhm. de la part de Tata Fatdaay joyeux anniversaire. Mhm. xëy sama xarit bu dëkk fii Wakam it maa ngi koy souhaité joyeux anniversaire chéri Mousse. Mhm. dundal lu yàgg yàgg. moo doomu daal anniversaire mu bàjjen Awa Diop joyeux anniversaire Oumy. les natifs là di leen ñu may ngato nag. waaw ut xanaa. Mm. ut gi de moom tarkaala macha allah Pamalo joyeux anniversaire. ñi baax ñëpp ut lañ judd. sama xarit sama doom ndey. Ah. Mm-hmm, si si ah. ñun nag waa ah, mars ñi baax ñëpp ut lañ judd. ñun waa mars ñi baax ñëpp fin d'année lañ judd. ñun moom ñooñu moom. novembre ak décembre. <laughs> bébé de bébé de l'année. <laughs> ne. <laughs> yow wax nga dëgg Assane Fall sàcc ba sàccoon Birahim Touré <laughs> Birahim Touré tamit xaw nañ koo rey. Hmm? Birahim dañ koo sàcc benn fajar fii. jël na doosam. <laughs> Birahim flash loolu la tiitaree de sàcc bi <laughs> moom la ubbee air. loolu ubbee. Euh, euh, Birahim am na. man tam mën naa nekk ci li bu ubbee journal bi ak. ah yow mën na tënk ba léegi koy <laughs> mënoon naa def réaction bi rek. la <laughs> réaction de Birahim Touré que nous propose de suivre. au micro de au micro de Mohamed. maa mën a nekk li yow. man maa mbay ni ma mel baaxul. ma rajo bi yàqu na <laughs> Jaxeer maa ngi lay nuyu. nee na instant bi moo ngi gaañu. mel ma woon nii. waaye waaye nettali leen nu sàcc yi balaa ñuy jeexal. <laughs> waay nettali leen nu ah, sàcc yi man naa nettali man man tey <laughs> waay waay waay waay waay waaye waay waay waay waay sàcc yi. Oh, yéen a ngeen suñu àdduna de. <laughs> waaye na policier ak gendarme yi war nañ ñuy dimbali. Mm. ci ci xeet bu bees bi ñu jël a yeeg gent yeeg ñoom seen. ah non non loolu moom nañu ko arrêté. xam nañ ni fu ñu koy sàccee am na bërëb yu ñu koy jaayee. Mm. nañu dem dal ci bërëb yooyu noonu. te ils sont tellement intelligents ah. xoolal boobu xalaat rek boobu stratégie. nga teg ko wekk ñeenti pneu. yéen sàcc yi xam jàppale ne xam nañ stratégie bu bees boobu. princesse Fall nee moom ay suñu përë yi ngeen di wekk dañu sàcc si karapit sàcc bu am classe nee na waaw nan lay def gars yi bu ñu la parfois da nga sa kër ngay doog a xam a xam ne façon bu ñu koy jëlee yow doo sentir ni jël nañ ci man ah, dara fu ñuy sàccee ay nit kay di lay yóbbu kay kon nag mat xeer matul saful wax mm-hmm. te nit ñi sax parfois da ngay sàcc duñ ko yëg wallaay mu ngi noonu jékki-jékki gis bopp foo xamul na mel ni sàcc ba fekkoon mu ñëw rek ko ay papa tonto tonto tonto da nga nuróog sama nijaay da nga nuróog sama nijaay ak sama nijaay benn ngeen mu ne ko ndeysaan dem ñibbi këram. woomi na ko. gisatul pension ba ndeysaan. mu dox ci tali bi ku tase ak Mame Mbaye Ndiaye. yow laa nuroo sa nit. <laughs> mu ne ko dee mu ne ko kon yow dem ci keneen. gisaat si meen Diop yow laa doon nuroo sa nijaay. pension <laughs> ah, ba dem na. mu ne ko déedéet mu demaat ci keneen. yéen doo wér ku ma nuroo. <laughs> aywa jëlee nii. yow laa doon nuroo sa nijaay. mantu yëngooti nga de bàyyi sa yi ngay def. Fatou doo ñaan. ni ñaan ba suba tey Mame Mbaye ñaan mooy kilifa gi. Ah, Arma Medina maa ngi lay nuyu. sama doom ñaanal defal ñaanal jaajëf. waa nii la jotaay bi. li ma duggaloon de kenn du ko génne. déedéet ñu naan rek <laughs> waaw mu ngoog ñu ñaa ñaanal ñëpp nag euh, sëñ ñu seetaane la bañ bët ah, ak cet ñaanal ma ay gentil di ñaanal euh, mantulaay mu ay gentil yu yees ah, waaw te ñu bañ koo woo metti sàcc yi ñu leen ñaanal ngeen téye seen loxo yàlla man na ko te euh, sañ na ko waaw képp ku ñu sàcc yi borom pëne yi ñu ñaan yàlla moom ay pneu eh, eh, eh, yàlla may leen euh, mi jóge fii. mbas ko ba mu dellu. amiin si dara. amiin ndax moo jiitu saxaari poos yi mm, mm, mm. bari. amiin amiin bari. mu amal la man. waaw yokkute ba yëg ko rek. amiin amiin jaa ngeen incha allah. <laughs> min yo laa xam yo la mën a digaanen yo la min yo laa xam yo la mën a waxtaanen yo la min yo laa xam Uniparco moo leen doon may seen émission Teuss Uniparco cosmétique vivez votre beauté exprimez votre différence seen lait en poudre Vitale moo leen doon may seen émission Teuss man Ibou jàngalekat la bi may nekk xale ba léegi néew bridel lay def ci sama ndeyki. man Fatou étudiante laa bridel lay faral di naan laata may tëddi guddi ku nekk. man Abdoulaye ci football lay yëngu saa ma waree jogante néew bridel lay naan ngir ànd ak cawarte. man Rama si pâtisserie lay yëngu ñëpp nee nañ samay gâteau ñëw fii man sama secret du dara lu dul bridel. ginnaaw ànd bu toll si lu ëpp juróom fukki at fii ci Sénégal Biridel moo nekk meew bu sénégalais yi gën a taamu Biridel meew buy gën a neexal seen dund. jaay di ci ànd beeg Zik li ab communiqué la bàyyeekoo ci office national bu assainissement bu Sénégal mi xamal askan wi ne dañoo gis ne li ñuy branché ci égout yi te jaaraluñ ko ci yoon ci réseau bi nga xam ni mooy dàq ndox mi mu daal di jëm ci géej ak ndoxum taw mi loolee nag nemmeeku nañ ko ci zone yu ci mel ni Wakaam Ngor Ouest Foire ak Grand Yoff yi nga xam ne dañ ko def mais nit càcc teguñu ko ci yoon ay jafe-jafe ci réseau bi nga xam ni moo war a dàq ndoxum taw meeg ndox yu bon yi ñu daal di tàbbi géej loolee nag kon andi na leen ay jafe-jafe te it jural askan wi ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ak ci wàllu ko dundin ci noonee ONAS mi ngi sàkku ci kër yi ñu daal di des jël seenu ko matuwaay ndax itam ni nga xam ne ñooy seen équipe daal dinañ leen di mobiliser ngir ñu dugg ci gox yeeg goxaateeg ci koñ yi di saytu lu jëm ci wàllu ko branchement yooyu nga xam ne def nañ ko ci jaarul yoon niki ñaar fukki fan ci weexu képp koo xam ne fekk nañ la nga branché ci réseau bi nga moo ko moom am nay daan yoo xam ne ko teg sa kaw niki yoon ni ko daal di tëralee képp ku ci bëgg ay leeral mën nga woo ONAS ci téléphone ci numéro yi 33 859 35 jëf. salaamaaleykum mbokki jullit yi Serigne Abdourahmane Mbacke xalif Seynde Fatma moo leen di yëgal ne jot na ndigal lu bàyyeekoo ci Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke xalif Cheikh Moustapha Al te ndigal li bàyyeekoo ci Serigne Mountakha Mbacke xalif général des Mourides màggal bi su ci Touba wàcc ci àdduna bi sëriñ Muntaxa joxe ndigal ci màggal yi ci jàng alxuraan ak xasiida te wattandiku ndaje yi ngir mën naa sabab ak wàllante bi jur lawuk balaa bi sëriñ Abdourahmane Mbakke mi ngi nuy soññi ci jàng alxuraanul karim xasiida istixfaar salaatu ala nabi bernde yéene yool ba xaadim rasul ak jax mustafal karim mi ngi ñaan balaa bii suñu borom jeexal ko ñu ci wopp wér ñu ci faatu tabbi àjjana te musal ci kum dalagul nawet bii suñu borom àggale ko te mu barkeel te mu muurloo ko Cheikh Abdourahmane Mbakke gaynde Fatma ne kilifaam yii fuñ doxañ fa lay aw Mountakha dafa diggal murit yi moytu mbas mi wàll giy law te màggal bernde foo nekk def ko yàlla fay la ak yiw ku jëf ndigal ak barke saadix bu jóg xelu xeloo fi daaraw Cheikh Abdourahmane mi ngi leen di ñaanal wér gudd fan wër sëkku yaatu ne taw Cheikh Abdourahmane yàlla na gudd fan wér bor la jullit la te murit la buñ naw la qualité fait la différence Zik. Mon gars, chien, les liens, abandonne-moi, bi ou néné, Maria.